jël bagage yi defar ko war koo yóbbu euh, ranger ko ci biir avion bi gaa yi liggéey ci bagage yi gaa yooyu nag ñoo ñuy bëgg a rey ñooy sàcc ci bagage jàmbur yi ñoo jël sama valise valise boo xam ne danga ko tëj wut kànnaar nga wut ko tëj ko kànnaar ba noppi dem yóbbu ko fay ci quatre mille francs ñu filmer ko ñu laxas ko ak perméable ba mu daj dëgg yàlla woo valise war naa mën a am sécurité ndax valise woo kat valise boo xam ne original la valise bu dëgër ba noppi tëj ko kànnaar ba noppi dem filmer ko nag loolu mënuma def lu ko ëpp man en tant que client waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci bagage yi ñoom ñooy ay sàcc wala bu fekkente ne duñ ay sàcc yi itam am na koo xam ne ca ñoom am na lu ko naqari ci man xëy na mu xàmmee samay bagage di sabote parce que loolu yëpp na nekk ñaar yëpp mën na nekk ndax bii mooy deuxième loo xamante ne bii matagul deux mois mois bi passé ak bi est-ce que kon fii ak deux semaines trois semaines du amaat parce semaine bu dama jaar fa tijji valise yi valise yi man moomuma ca dara to omu ko ci valise bi lépp ay bagage jambour la yo xamne sumay ñew dama ko moy bagage bay andil ay nit fi ci dëkk bi mu nekk ay yobant yu may jox ñii seeni casier sur ñu di wara dugal ci seeni seen papier yi nga xamne ne mënuñ ko liggéentee fi mais Sénégal lañ ko mëna a il faut ko ñu liggéente fofu foofu ñu leen ko pour mu gaaw ni takay ni seen nangam kenn ku ne ak sa bagage ba nga am fu dem dugal fa loxom jël ci lu ko neex ba par na gël yépp nak da dama ko jalatal ci biir valise bi jalatal ma yépp ci biir valise bi yu ko intéressé wut man awma lu dut ak ci awma lu dul ak ci espagne rek ñëw ci tapis bi toog di xaar samay bagage jékki-jékki seen valise bi mu ñëw mais mu ñëw te kenn filmé wu ko amul perméable amul dara ba si xottu valise bi noonu bu ma ko sénégi bi mu jaaxal ma. ma seetlu ñiy tukki heure bu leen sàccee rek Sénégal lañ koy jiiñ te tubaab bi dañuy sàcc naar yi dañuy sàcc te niw ni ni ni ni ni aéroport yu Sénégal yi amee sàcc noonu la aéroport France amee sàcc noonu la ab aéroport Espagne amee sàcc noonu la aéroport Maroc amoo amee ay sàcc lan moo tax ñu bëgg ko jiiñ suñu aéroport yi chaque jour. waaw leen mooy wane ni sàcc gi Sénégal lañ la sàccee. non li koy prouvé mooy bagage yi aéroport Dakar rek lay taxawee maanaam aéroport Dakar rek nga ñëw enregistré sa bagage ba noppi bagage yi def fi ab diir lu mat une heure wala deux heures de temps vol bi parce que fa may wàcc Madrid boo wàccee ci avion bi da ngay changé avion da ngay wàcc rek changé avion te si ngay wàccee changé avion avion ba ngay jëlaat booy boo ngi dugg avion boobu say bagage nga ci avion boobu déjà. kon diggante booba bagage yi amul fu ñu koy dugal day jóge ci avion bi dugg ci avion bi ñu yóbbu ko directement foofu diggante boobu nit mënu fee sàkki dara parce que bagage yi duggut aéroport Dakar képp lañ ngay demee enregistré ñu wàccee bagage yi ci suuf bagage yi tegee bi la war yóbbu Espagne vol bi ñëwagul waaw nga xam nga xam ne 19 heures la ngay arrêté bi 21 heures lay ñëw yi doo ko jël bagage yi nga xam ne ñoo nekk ci magasinage bi bi ak ni ñuy c'est vite fait boo wàccee ci avion bi ñëw ci tapis bi doo balaa ngaa def cinq minutes six say bagages agsi foofu dara xaju fa waaw temps bu temps bu bu ñuy bi yi jaar fenn moo fa amut. loolu loolu loolu moo koy prouvé mais bu dee ca Espagne mu nekk koo liggéenti parce que loolu amul problème foofu boo dénunciaree da ngay dem ci yoon dañ lay fay procédure bi gudd na mais amul benn problème da ci yoon da Sénégal sax koy def Sénégal mënoo am fenn foo jëm parce que Sénégal état moo absenté complètement ci xam-xam bu gàtt est que état nga amel problème est que du compagnie bi nga xam ni ñoo la jaay billet war la jëlee Sénégal yóbbu yow ak say bagage su say bagage manqué kay defe naa ni ñoom nga war a porter plainte waaye defe naa amoo problème ak état su ma jóg. Ndoye Bane non man buñ ma buñ yàqee sama alal waa Iberia laa porter plainte Iberia su ma demee Espagne fi ma leen di porter plainte xam naa ko fi may jaar pour ñu fay ba xam naa ko seulement nag procédure bi mooy yéex ndax bagage jàmbur bu ñu la jox nga war ko yóbbul borom. ngay egg ñu ci yoon wi nga war a fay borom man fay naa fi bagage six cent mille fay naa fi bagage su euh, deux cent cinquante mille barki démb ab télé a